dal leen jàmm élection présidentielle gi am déwén daanaka léppi leer ci lu yàggatul léegi ñu xam ku cay bokk ak ku ca dul bokk conseil constitutionnel bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di la tribune tey la jox rendez-vous mbooleem yi déposé seen dossier ñoom ñëpp jot nañu seen convocation nara nag ñëw teewee tirage au sort bi jëm ci ordre de passage yu candidat yi ñeel contrôle bi ci parrainage yi dix heures lay tàmbali tirage au sort boobu yéenekaay bi ne bokk na ci étape yi gën a am solo ci élection présidentielle bii waaye nag yi ci nekk bari nañu ndax boo moytuwul ñi ñu jàppee ay candidat yu ndaw maanaam ñi siiwul boo moytuwul daal ñu duut ko ñi ñu jàppee ay ponkal juróom-ñaari sage ca conseil constitutionnel ay kilifa yu bari ñoo leen di assister tey le soleil xibaar ne ñii ci société civile bi la ñuy jóge ñii jóge sénat ñii jóge direction générale des élections am na it personnel administratif ak technique ba ci ay greffier ñii ñooy gunge sage ca conseil constitutionnel ci liggéey bi waaye nag candidat yi bare nañu lim ba mot na téeméer wala sax lu ko ëpp loolu nag enquête xëy di ko jàngat sama leeral ci li ko waral Benno Bokk Yaakaar ña fa mer ñëpp gannaaw ba ñu tànnee amadu Ba ñu ci ëpp ci ñoom ay candidat lañu Yewwi ak Wallu kazalika waaye nag nañ ko waxte dee ndax yéenekaay bi moom dafa gis ne bari na ci ay candidat yoo xamante ne buzz rek moo leen yëkkati ndax leer na leen ne duñu dégg mukk monsieur le président de la république wala boog du doon ci élection présidentielle bii élection présidentielle bi ministre de l'intérieur mi nga xamante ni mu ngi ci xolu organisation bi jël na kàddu ngir dalal xelu acteurs yi nee na dana def lépp ba lépp jaar yoon je serai à l'écoute la jàppe la Sidiki Kaba wax ci biir yéenekaay bi di réew mi quotidien loolu nag li ci jublu mooy sàmm jàmm ji ñu mos a xamee Sénégal loolaa tax Vox Populi jàpp ne Sidiki Kaba nag engagé wu na ngir relever défi yi naka noonu it administration territoriale bi ministère de l'intérieur DGE Sénat DAF police gendarmerie gouverneur préfet ba ci sous-préfet yi daanaka ñëpp a taxaw temm ngir élection bi leer jaar ci yoon lii la Alioune Aïdara Niang di secrétaire général ministère de l'intérieur xamal samay naataango yu Vox Populi la tribune jëlaat kàddu équipe am yéenekaay bi gis ne li ñu wax gaa baax na am na solo waaye ci contrôle parrainage bi la war a tàmbale warul am xaj ak seen wala boog sax di seppi ay candidat ci ma tey nay leer la tribune santaane mbirum Ousmane Sonko ndax dana nekk candidat am déet coow li daal bari na source a ci la xëy jox ci kàddu nag Pape Moussa Saliou Guèye di docteur en droit di enseignant chercheur nee na dossier candidature bu Ousmane Sonko amul dara luñ ciy laam-laamee ndax quittance bi mu jëlee ci caisse des dépôts et ñu ci wàllu yoon Ousmane la te il éligible bu ñu ko jëlee nag ci côté administratif docteur Guèye ne administration bi moo lànk te loole kenn mënu ci dara ci ay gëtam la tax mu wax ko nag mu ngi ci biir yéenekaay bi di source a administration googa Macky Sall mooy ndeyu mbi gi moom Macky Sall moom la bés bi le jour xëyee tey ak discours bi mu nar a def 31 décembre sama naataango gis ne Macky comme Senghor 31 décembre la war a orowaar sénégalais yi ni ko Senghor defee woon 31 décembre 1980 Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade moom yéenekaay bi ne ba tey mosuñoo orowaar Sénégal ci bi ñuy jógee nekkee ci bopp réew mi ci discours bi Macky Sall war a def 31 décembre bés bi le jour gis ne discours sans pression lay doon bilaawam rek lay def ngir gën a jaay kii di Amadou Ba ndax nag dana jaram déet le février lay leer ci kaw conseil constitutionnel validé candidature am Sud Quotidien moom dafa xëy di jàngat yi fi xew ci atum 2023 bi jeex dossier politico judiciaire yi manifestation yu métti yi fi amoon ci weeru mars ak weeru juin coow li ci fichier électoral bi ba ci sax ak ak ak yeleefu doomu aadama yi ak yeneen ak yeneen 2023 de tous les excès maanaam at mu lëbëjoo enquête moom ne une année secouée les échos moom dafa xëy tey di ñu xibaar lu jëm ci Ndella Madior Diouf moom ak ay càmmiñam mandat de dépôt nañu leen ba yóbbu kaso démb nu ya moom ñu def leen contrôle judiciaire libération gis ne li xew ci kër yërmande affaire business la woon Ndella Madior Diouf utum koppara ko taxoon jóg loolaa tax mu dëkkee woon toroxal xale yi boole ci nag di seeni yaay ak ñi mu leen doon tuddee lu soreek lool mbirum kër yërmande ak politique bi l'observateur dellu siwaat ci accident amoon ca 6 atu yokk na bilan bi jóge na ci 40 jëm ba ci 70 morts beneen biir mu di mbirum kokayin gi marine bu Sénégal jàpp ci fan yee weesu les échos xibaar tey ne connexion bu doy waar la diggante ay cartel español ak yu albani cocaïne bi Amérique la bàyyeekoo ñu waroon ko récupérer ci diggu géej gi ci Afrique sowu jant enquête bi ñu ci ubbi Sénégal mu ngi ci biir Interpol ba ci sax Portugal SAR société africaine de raffinage mu ngi monter en puissance le soleil a ko wax xëy nag di càmbar capacité production société bi ak la mu ngàlloo ne objectif diggante 2025 jàpp 2035 ñu des ba léegi ak yéenekaay bi di le soleil wax ci wàllum tàggat yaram ak Coupe d'Afrique des Nations bi ñuy waajal daanaka ñaari semaine moo ci des entraîneur yaa ngi tàmbalee siiwal listu seen joueur Aliou Cissé tey la ko war a def bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi record ne mooy ci cadram yi la bëgg a sukkandiku le soleil jëlaat xibaar ne Sénégal